le grand champion le champion du monde le champion du monde en karaté Mamadou Ali Ndiaye le champion du monde kii le champion du monde kenn waru ko téye mu daj kii moo fi am kara titre champion du monde ndeysaan le grand champion champion ziar naa la na nga def naka liggéey bi tey la andi si làmb ji lu xew bawol bawol yi bawol bawol nga bokk dëgg gitu nan nga gisee nggak Sénégal non Senegal, aha dafay dundal réew waaw dëgg la suñu cosaan mais France ji di jëm fi nan ngeen Wow. Wow. même Wow. dafa nekk Wow. Uh-huh. for Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. xam-xam bi ñu la le premier janvier lan la lay jox 2023. combat kan ak kan. Balla doomu ba ndeysaan balagay de doomu du walles bo Niang de doomu Dégol lolu arbitre bi sible nan la war wow mel wow, waaw waaw ah. wow, wow, bu arbitre bi kan mooy gëdd moroomam waaw wow, ah. Dagelan. Bunyi japan deh, kan kan bagis bagis bunyi japan deh. Wow. Wow. Wow. Wow. Aha. Desan, Desan action mamok. Ay, Max Margano kok. Max Margano kok. Desan. Desan diarna lah, Abdou bakum. Ay, wala mamok. do grand pigi na moom grand ziar naa la ndeysaan waaw Alagaydı boyuna. Ben herhalde teknik. Wow. Sesem. Wow. Wow. Wow. Dëgg la. Kan mooy favori? Pourquoi Boy Niang 2? Waaw. Ah président favori Balla Gaye bi bëre ak Bombardier Balla Gaye bi bëre ak Gris Bordeaux Balla Gaye boobu bu bëre Boy lan nga si gis waaw Gueye jërëjëf Mamadou Aly Ndiaye kontaan nañ si yow ndeysaan grand champion jëwal yaa ko siyaar naa la grand champion du monde dëgg la wallaahi ñoom Jacques Daisan Daisan Daisan Bobo ma doon may rir mu deug sa sabar lan nga lang wa waxal jaajaan ndeysaan jaaj ndeysaan dol police uh-huh. uh-huh. tëgg ñaata rythme la am tëgg rang tang la mooy er, la mooy kiw tëgg. waaw. ndeysaan déggu ma déggu waaw. waaw. Uh-huh. juróom la. amul ndeysaan. rang. tëgg rek ban mau angai tëgg wow waaw waaw ah ah Desan lalu mooy sabar ah wow ah ah dalam mu juróom-ñaar la dëgg-dëgg laa Pape Xalang waaw ndeysaan ndeysaan ak teer waaw ndeysaan baay bu naa baas aa papa papa Ndour Ndiaye Rose papa ñoom papa Ndiaye Ndour Ndiaye Rose ndeysaan bie seng fay ba Mbaye Dieye Faye ndeysaan ndeysaan wallaahi aha ndeysaan aha bu ñu leen boo tëggee ba ñu leen a masa masa mooy lan waaw may leen mu ma ñëw waaw waaw aha journée ñaata ngeen di am si làmb journée ñaata ngeen di am par làmb lañ leen di engagé waaw waaw aha waaw ba léegi waaw loolu am na waaw Iba Mar Diop waaw waaw waaw ndeysaan Lac de Guiers aha ah. Balla Gaye 2 ndeysaan Issa Pouye yow xam nga làmb xam nga làmb waaw waaw Assane Diouf waaw Iba Mar waaw waaw ndeysaan waaw jël ko waaw Mbacke Faye waaw waaw waaw. yàlla yàlla fekk tool yi rek. dëgg la waaye daal lam. waaw saa su ne nit yi soog. yàgg ci. waaw war na leen bokk seen i dëgg dëgg la. sonn na nag ci làmb ji. incha allah képp ku ci nekk. dañuy bàyyi xel di jàppale. ndeysaan te xam ne. waaw boo nee mënoo mën si daaw. waaw. dëgg la incha allah jërëjëf mon frère ba si kanam ndeysaan le grand tambour major jërëjëf